sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal Let's go.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 tey ñaan suñu borom subhaanahu wa tabaraka ni kàddu fekk leen ci jàmm mu mel ni suñu jotaayab tey ci yóbbulum ndaw ñi ñi ngi nekkoon ci téere bi ñuy wax tasawwadu sixaar muy téere bu am solo mu mel ni jëloon nañ ci suñuy bind wi njëkk kon nag tey jii ñuy fas yéenee tàmbali ci suñu bunt bi nga xamee ne mooy xaaj bi jëkk ci téere bi nga xam ne sëriñ bi daf ko def soññ ci ndaw ñëpp ak mat ñi nga xamee ne seenu ndaw day na faatoon ci wàllu jaam yàlla nan lañ koy daboo bismillah muqaddamatun lii lu ñu jiital la yaa ayyuha sibyaanu yéen ndaw ñi laa tastaxilu bu leen soxlawoo anil huda lu dut ak njub wastaxilu ak ngeen di soxlawoo bil xulumi ci sàkku xam-xam ya mu nekkat kon yéen ndaw ñi maa ngi leen dénk man Serigne Touba bu leen soxla woo dara lu dul sàkku xam-xam ak sàkku ak njub sàkku xam-xam daal ak sàkku ak njub na leen jaral lu nekk na nekk seenu yitte na nekk seeni bëgg-bëgg na leen jaral lu nekk fastaxidu ak ngeen di soxla woo bil xifsi ci wat wat tilaawa ak jàng wàccani bu ak ngeen di teet majaalisa saxaawa jotaayu way texee di mu ne yit maa ngi leen di dénk na ngeen di jàng alquran te di ko mokkal mokkal alquran ba pay di ko jàng waaye maa ngi leen di dénk na leen na ngeen wattandiku bépp jotaay yoo xamee ne jotaay yu way texee di la bépp jotaay boo xam ne jullit bi toog na ko ba jógee fa fàttaliku ko ci yàlla fàttaliku fàttaliku dara ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëriñu ñëwut ci addunaam jëriñu wut ci àllaaxiraam jotaay boobee jotaayu way texee di la jotaayu perte la bi nee na na ngeen di wattandiku jotaay yooyee na ngeen di jàng alxuraan te di ci yéene ak jaamu yàlla walaazimu ak ngeen di takkoo man kaa nga xam ne laa yazaalu déet muy deñ aabida di jaamu li rabbihi ñeel boroomam ba xaa'ida di wommate ilaa hudaahu jëmale ci jubam gëm mu ne kat sagab am àndandoo mënta ñàkk maa ngi leen di dénk boo leen di wut ab àndandoo na ngeen di ànd ak ki nga xamee ne day jaamu yàlla borom subhaanahu wa tabaaraka wa taala waaye jaamu yàllaam googee boo ànd moom nag mu wommet la ca jëmale ci jubam googee mu ne kon na ngeen di ànd ak kooku na ngeen taqoo ak kooku ndax boo taxoo kooku kat faaw mu wàll la jikkoom jikkoom joojee mooy jaamu yàlla ja ak njub ja kon daanaka boo xoolee loolu moom mooy li nga xam ne mënta ñàkk ci nit faaw mu xool ñi muy àndal muy ànd koo xam ni daf koo ëppale ak ragal yàlla ndax mu mën ko womat jëme ko ci yàlla mu ne fa kullu man képp koo xam te ni baadara gaawoontu na waxtas si xari ci waxtu ndawam ilal huda jëm ci njub istaraaxa mu noppalu waxtal kibari waxtu magam mu ne na ngeen xam ne yéen ndaw ñi képp koo xam te ni ba mu nekkee ndaw gaawantu na nekk ci ak njub kon dina noppalu ba mu nekkee mag kon kat li sëriñ bi di xamal fi mooy ndaw mu ne bu joxee ndawam sunu boroom maanaam tàmbali tàmmal boppam ci jaamu yàlla jëm ji ak njub bu màggee dina noppal ndax suñu borom moo ko yoroo lépp ndax ndaw mi nga xam ne dafay tàggat boppam ci jaamu yàlla bu demee ba nekk mag ba nekk mu kallaf jaamu yàlla yooyu day yomb ci moom sax ci moom njubam googu day sax ci moom ba day noppalu ndax du ko tiisal ci moom dara bokkut ak ki nga xamee dafa dem ba nekk mag bëgg jaamu yàlla kooku jaamu yàlla da koy jafe lool kon ndaw ñi ni ngeen gaawantu jëm ci ak jaamu yàlla ndax boo leen nekkee mag ngeen noppal mu ne daa tadaaraka képp ku dab dabaatal allazi la nga xam ne xad faata faatoon na ko minal laxaa ci ay neef wa xamara te mu dundal aw xaata waxtu ya mu ne képp koo xam te nii nag ba nga demee ba nekk ndaw suñu moom dafa laa natt woon nga nekk ci ay caaxaan ba nekk mag nga tuub jëm ci yàlla bàyyi lépp loo nekkoon kon naa kookee kat loolu mu faatoon suñu dina ko ko jéggal kon nag loolu lu am solo ci lay ñëw nii sax moo tax ma dem bi taw ba ci tuub an nasuuxi gu sell wala iqbaali ak ak jublu ilal ilaahi jëm ci buur ba faasa texe na bil kamaali ci mag mag mu ne kon képp koo xam ni dem na ba nekk mag xam ne kat ak ndawam lu bari faatoon na ko ci jaamu yàlla lépp lu bari tamit da ko def ci ay neen mu daal di tuub na tuub gu sell tuub ga gën a sell jublu yàlla rek mu ne kooku kat di dundal waxtu yi ci jaamu yàlla léegi dara dootu ko rawati sax ci ak jaamu yàlla mu ne kon kooku tubam googu tub gu sell la dañ kon kooku bu saxee ci loolu dina texe texe bu mat mat kon loolu lu jar a bàyyi xel kon nit ñi lépp lu rëcc ci ay jamono bu jamono ñëwaatee boo xalaatee ne lu bay rëcc na la tuubal sa borom jëm ci ci yàlla sa borom tuub tuub bu sell te fas yéene jaamu yàlla te dundal waxtu yëpp ci aw yiw ci aw jaamu yàlla kon boobaakat loolu la d'abord loolu nga xam ne faatoon na la ci sa waxtu ndaw suñu boom mën la koo jéggal te lépp kat kat mi ngi lay jëmee ci ak texe texe gu mag mu ne xaakum dénk naa leen nasiixat yi samag laabire lakkum ñeen leen fa tarbaxu kon di ngeen tonaw duniyaa ci àdduna wa uxraa ak àllaaxira maa xaw min ànd ak ñi nga xam ne aflaahu mu texe nañ mu ne kat lii mooy sama dénkaane yéen ndaw ñi kat ak yéen mag ma yéen ndaw ñi dénk naa leen dénkaane bii ni ngeen ci jàpp bu leen jàppoo kat di ngeen bénéfice ci àdduna ak àllaaxira di ngeen jëriñu ci àdduna àdduna di ngeen jëriñu ci àllaaxira waaye du ci yam de bu ëllëgee yamal xiyaam di ngeen ànd ak nit ña nga xamee ne nit ñu texe lañ Ah, ah kon loolu kat lu jara lu jara lu jara wat wat wattu la lu jara bàyyi xel kon loolu mooy dénkaane li nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk andi ci bunt bu njëkk bi muy buntu mu xaddam bu njëkk bi muy ci tasawudu si xaar yaa ayyuhaa sibyaan dénk na ci ndaw ñu sàkku xam-xam ak njub wat ma du ko jotaay waaye texe di te tey tax ko ñi ja ñi jaamu yàlla kon nag loolu lu jara bàyyi xel kon mu mel ni suñu bindub tey dañ koy yemale fii di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp lépp lu fi dëng rek nañ xam ne ci suñu jëmm yu xeeb yi la ndax nit moo tëddee noonu lu fi jug nag nañ xam ci njubug yàlla ga la jóge kon ñi ngi sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ngi topp jotaay yi di ñaanal suñu moom defal leen tawfeex ak njub ak ak ragal yàlla kon ñu ngi wàcc kàddu yi wax ne yàlla nañ suñu boom defal suñuy mbir te defal ñu li gën ci ñun te dëppale ko li ñu bëgg in uridu ila al islaha mastata'tu ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jotaay in sëriñ bi dañoo sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéeyal